Euh, alors, je m'appelle euh, Sophie Vacarni, je suis volontaire coordinatrice des programmes euh, d'agriculture urbaine du CED. Donc, le CED, c'est le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable, qui est une association de femmes qui a été créée en 2005 dans le but vraiment de développer les communautés de Thiès. Donc, euh, le volet principal de l'association, c'est vraiment l'agriculture urbaine et le micro Donc en fait, on déroule plusieurs pro euh, projets depuis 2011 dans ce sens-là. Et donc notamment deux journées, euh, deux, deux, projets qu'on vient un peu célébrer aujourd'hui à travers cette journée de la fête des légumes. Donc euh, le premier projet, c'est euh, consommer des légumes toute l'année, pourquoi et comment, qui est un projet euh, qui, euh, qui a donc été déroulé dans deux écoles de Thiès, donc une ici à Thiès-Nonne et une autre à Ambourin. Donc le but du projet, c'est vraiment de sensibiliser les enfants euh, à l'importance de consommer des légumes, comprendre les qualités nutritionnelles euh, qui font qu'on doit manger des légumes tous les jours, et puis en même temps valoriser un espace de l'école, à travers la création d'un jardin potager. Et donc les enfants ont été les premiers acteurs euh, de, ce jardin, ils ont, appris toutes les techniques de base de traitement des sols, de, techniques de repiquage, Donc voilà, on a déroulé plusieurs activités pendant toute une année, donc euh, plutôt pédagogique euh, en classe, avec aussi des étudiants de la fac et une association sénégalaise qui s'appelle Africa for Africa, qui nous ont beaucoup aidés, des étudiants ingénieurs agronomes. Et, euh, donc qui s'est déroulé jusqu'aux derniers ateliers où on, on, faisait plus de transformation, de conservation des légumes, notamment à travers l'utilisation du four solaire que vous pouvez voir Euh, et, donc en même temps, on en profite, pardon, on aussi de cette journée euh, pour, euh, pour euh, un, enfin, on, a, on est venu avec les femmes bénéficiaires d'un autre de nos projets qui est vraiment de la formation au micro pour des femmes de Thiès, donc des femmes qui n'ont souvent pas de formation professionnelle et qui donc peuvent exploiter l'espace qu'elles ont dans leur foyer pour, avoir des jardins, donc cultiver leurs propres légumes et revendre le surplus quand elles le peuvent.

Alors le projet de la, la Fondation de France, euh, c'est une famille, un jardin pour nourrir les villes, donc de formation de femmes, c'est un budget de euros. Et euh, celui euh, de la Fondation Louis Bonduel, c'était un projet de euros. qu'est-ce qu'elles qu de tout ça Alors, ce, ceux de, les femmes bénéficiaires du projet Fondation de France, elles ont été formées aux techniques de micro parce qu'elles ne savaient pas du tout euh, comment le faire avant ça. Donc, chez elles, ont pu installer des tables de micro-jardinage qu'on leur a fournies. Elles ont pu développer leur jardin, notamment à, à travers l'utilisation de matériaux de récupération. Donc pour essayer de produire le plus possible, pour pouvoir à la fois ne plus euh, avoir à aller au marché pour acheter des légumes, donc être satisfait uniquement par euh, leur propre production, et puis en plus tirer, euh, tirer euh, un revenu euh, de, de, ces, de, des ventes, des surplus des légumes qu'elles peuvent, qu'elles peuvent produire. Donc, donc voilà, et puis ensuite l'idée finale du projet, c'est qu'elles s'aménagent, donc qu'elles se montent en coopérative. par quartier. Donc ça, ça, va être de créer six coopératives qui, euh, à la fin, seraient autonomes et pourraient travailler seulement, euh, seulement entre elles et que le SED n'ait plus besoin de les, de les appuyer. Voilà. ok merci. li ko waral mooy tey dañuy mën naa ne dañuy féete ah benn projet boo xam ne dañ ko def ci école yi. ñu bokk ko ak benn fondation bu ñuy wax Louis Baudouin école yi nag école club de Thiers la ak Thiès noon waaye ci ndib mbir mi ni mu tëddee dañoo gis ne Thiès noon doxam xaw na yaatu ba nga xam ne euh, gaawaayu dox bi mu dox moo tax ñu ne kon comme ñoom àgg nañ ci fenn fi nañu def fête des bi su ko defee xale yi. lii nga xam ne moom lañ dundoon ci projet bi ñu mën koo dund ak seen waajur yi ak autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ndax ci biir projet bi wan nañ xale yi ne soo jëmbatee sa graine am na noo koy toppee ba mu sax gàncax ba nga xam ne moom nga soxla waaye dañoo gën a sori ak xale yi xamal leen ne gàncax boobu su fekkente am nga ko ba pare maanaam tey bu dee chou nga am ngaa mbaa xamal nañ xale yi ne du ci ceebu jën rek nga koy lekk du ci ñamu xorom rek nga ko mën a lekk kon mën nga ko lekk ci ñamu suukar wan leen ne kon carotte mën nañ ko def Euh, comment dirais-je confiture mais waxuma toggee gaz mbaa toggee këriñ mbaa toggee mat mbaa jant bii ñu maam yàlla may nga xam ne doo ci fay dara man nga ko cee toggee kon pour wan la ne bi ñuy jógee ci li nga xam ne dund la dañoo soreek ñoom pour xamal leen ne dund googu boo ci jógee am na noo ko mën a soppee pour mu am yeneen i njariñ bu ngeen xoolee sax am na fi ay transformation yu ñu fi def ak yooyu kon loolu yëpp dafay wane ne mbir mi yaatu na yaatu boo xam ne ku ci nekk war nga cee mën a jëfee noo xam ne dina soppi ci dundin si wàllu lekk exposition yi nga xam ne moom ngeen fi gis moo di que ne dañoo lëkkale ñaari projet li tax ba ñu lëkkale mooy dañoo gis ne que ne projet bi nga xam ne dañ ko def ci biir kër yi mën nañ koo indi ci biir école yi ñu bëgg wan xale yi ne leen ki nga xam ne waajuram dafa bokkul ci projet bi maanaam amul table micro jardin ci këram yow xale bi jàngee ca école ba ko am war nga koo mën a jëfee seen kër waajur bi nga xam ne daf koo am ca këram mu xam ne ndekete mbir mi mën naa nekk ci école yi loolu tax ñu lëkkale ñaari projet yi parce que dañoo gis ne lépp ci wàllu dund la jëm mais ci dund yi comme ni ma koy waxee cible bi dafa yaatu tey dañoo dugg ci kër yi suba ñu dem ci école yi kon loolu mooy dem nañ ci tout tànk yi dem nañ ci borom kër yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi bu yàggee nag ñu lawal ko ba ci bérébu fajukaay yi ak bépp béréb boo xam ne nag am na espace parce que dafa jot nag pour ñu changer suñu comportement ci wàllu dundit xam ne nit ki bu fekkente da ngay consommer li nga xam ne yaa ko liggéey sa bopp gis fa mu jóge dafay dalal xel te dalal xel boobu sax dafay yokk wér ndax yow li ngay consommer yaa ngi xam fi nga xam ne fa la jóge Euh, ñun ñoo yore cantine bi man maa nekk présidente bi foofu ñoo yore mbirum kii bi togg élèves ah jardin bi moom tubaar fakal kalla macha allah amal ñu njariñ ndax yenn légumes yëpp ci jardin bi lañ koy jëlee waaw ndimbal la ci daal trop ci ci ñun ñi ci waañ bi waaw dina tax waaw économiser dépense bi lool sax baax am na njariñ lool sax am na njëriñ ci xale ndax légumes yi ñu fiy béy amul engrais bio la loolu moo tax mu gën a am njëriñ ci togg bi ñuy toggal xale yi fii aha waaw su ma sañoon moom yëf yi day wéy law sax ba law ci quartier bi su ma sañoon moom noonu lay demee ndax ñun gis nañu ci njëriñ waaw ndax tey jii bu ñu demee marché ba ñu jënd jëlee fii suñuy légumes dañuy jënd foofu ay jënd rek ñu ñëw toggal xale yi te légume bi ñuy béy fii moo gën a baax que légume ba ñuy jënd ca marché ba ñu amal nañu njariñ lool te jardin bi soxal nañu lool ñaaxaan. cm dañuy jox dañuy am ay légumes yu ñu toggee jardin bi ba pare dañuy jox ay vitamines vitamine C A yooyu yëpp daal baax na ci école bi. waaw ah, on arrose chaque matin. match euh, suba su nekk dañ koy arrosé pare dina déchets yi nekk ci biir oh. pare di ko gën a waat pour forme yi gën a génn. waaw. li euh, ñu amul dëgg-dëgg ah daa bu ñu ko lekkee tamit dinañ jox ay vitamines loolu daal laa si gën a pour daal moo gën a baax yeneen yi. génn fii moo gën a baax yeneen. ah. légumes génn fii. ah waaw.